jàpp nga ne aussi euh, ces assises euh, sur la justice aussi distraction la. non non seulement distraction la mais c'est très grave d'ailleurs que le président de la République dise qu'il faut redorer le blason de la justice nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs et puis quand tu vois ce que le Conseil constitutionnel a fait cest dire le luxe de la justice n'a jamais été, été aussi étincelant Conseil ak li ñu def ci élection yi que président wax ñu la non non je veux Conseil constitutionnel non nga def concertation indiwaat ni non je propose le 2 juin conseil constitutionnel le non et puis le président de la République c'est soumis au conseil constitutionnel donc de bu mel noonu ça veut dire que on peut on, on peut pas parler de redéblation de la justice les juges n'en ont pas besoin les juges la guérilla la guérilla judiciaire de l'affaire Ousmane Sonko a montré l'indépendance de la justice dans un système boo xam ne l'État central veut quelque chose un de province annulé ko mu dem cour suprême cour suprême jox ko cour d'appel cour d'appel va plus loin en disant non non au lieu de défaut de publicité le, le contumax quand tu vois ça le charme de la démocratie d'un état de droit c'est que c'est l'incertitude des décisions de justice boo xoolee c'est loolu la ñu ci war a jàngatee l'incertitude des décisions de justice ñun nous étions l'état quand les juges décidaient on n'avait aucune information léeg-léeg les juges ñu du duñ wax lu ñaaw duñ xas duñ saaga mais quand tu es dans un système comme ça où un juge peut annuler une décision de l'État central nga dem Cour suprême en tant qu'État parfois nga dem léegi cour suprême mbaq la léeg-léeg nga am raison mais dëkk boobu la la justice la justice la justice fait bien son travail donc la justice n'a pas besoin qu'on redore son blason le blason de la justice n'a jamais été aussi été étincelant et quand on voit li conseil constitutionnel def quand on voit euh, le la cour suprême quand on voit les décisions de justice là la guérilla la guérilla judiciaire que nous avons pendant deux ans il y a de quoi être fier de notre justice il y a de quoi être fier de notre grande administration la seule différence ce qu'on appelle l'exception sénégalaise loolu la rek ñetti mbir la en termes de science politique le premier poumon de l'exception sénégalaise mooy Senghor Léopold Sédar Senghor en 1960 ñëpp dem indépendance ñoom Houphouët-Boigny ñoom ñëpp def parti unique Senghor ne ma defuma parti unique damay continuer démocratie le deuxième pour moi l'élection sénégalaise mooy Ablaye Wade le Sénégal doit beaucoup Ablaye Wade Ablaye Wade à l'époque de Jonas Savimbi des guérillas des luttes armées mu ne man damay def opposition légale maintenant donc tu as les deux poumons maintenant la colonne vertébrale c'est l'État c'est l'administration c'est l'État d'Abdou Diouf l'État l'État depuis toujours de Senghor Senghor Senghor bi mu fi nekkee nekk président de la République gars yi doon def ay euh, ay président à vie des trucs comme ça il est arrivé que Senghor jël décision ay juge annulé ko donc loolu mooy Sénégal loolu mooy l' exception sénégalaise mais loolu nag li may wax Macky mooy le premier des modernes loolu dañ ko war a dépasser tey jii Sénégal en 2000 ñu def élection ñëpp di ñu tàccu naan Sénégal une grande démocratie pour man ça ne parce que yàgg nañ ñu ko wax boo xoolee président États-Unis fi jaar yëpp bu ñëwee Afrique dañu jaar seen Afrique président États-Unis buy def tournée en Afrique da nga nous ne sommes pas anglophones nous ne sommes pas une grande économie parce qu'on nous considère comme l'exception démocratique. est l'exception euh, boobu dañ ko war a dépasser pour dem l'économie